tu vois maintenant ce qui va se passer bu vous ne qu'un te loolu moo dal wad mo dal Macky wax naa ko fi mhm. si Amadou Ba remporte les élections Macky Sall perd son pouvoir politique sur l'APR Amadou Ba devient le boss parce que les politiques mais décret qui yor décret lañuy waxal gis nga le même cas bi may wax ci Ousmane mo am mhm. je suis laa ko wax eh. Amadou Ba président de la République mais Macky Sall c'est vrai ni ñu bëre ñu bëre léegi ñu ngi. non dem di ko fekki ya ah. xam nga bañ dajee méridien. Mhm. reconduire nañ la président. Mhm. moo nekk à la tête de l'APR. Mhm. te du luy luy neex a dindi du du looy dindi rek mars wala avril. déedéet mais nit ñi ñoo ko fay bàyyi. daw nit ñi ñoo ko fay bàyyi. dem ci nekkoon di ànd président dem ci borom décret. légui ñu ñu topi nañu Amadou Ba. yeen vous pensez que Amadou Ba day nekk day nekk président euh, après Macky Sall naan ko euh, PCA por defal ki laa fa bëgg. Ah, kee la kee bëgg te muy président kenn du ko jox ndigal. day doxal bu boobaa day doxal. dama ne. day doxal kenn du ko jox ndigal la la wax. ni mm-hmm, te en plus il va récupérer entièrement motax man ma mës a gëm ne. Mm-hmm. bu dee ci xol. Mm-hmm. gëwuma ne Macky Sall bëgg na un héritier bu bok ci mom parce que su amee mooy day perte ñaar day perte pouvoir ba pare day perte li mu liggéeyoon ci parti bi ba téye ko. ki bokk APR il devient le chef. ah ta APR nag c'est son bébé. mais da nga koy ñàkk. Hmm. supposons APR Koungheul wala APR Fongolembi wala APR Thiès wala APR euh, Tivaouane. moom conflit. Hmm. Amadou Ba président yor les fonds politiques di di di financer parti bi su boobaa dañuy dem ci Macky Sall na nga ko tànnal maa bëgg a maire te Amadou Ba ne fi. déedéet non dotul am cadeau dotul amati cadeau te ñi te ñi ko wër tey naan ko président yaangi dem waye yow lañ def tête de liste parti. moo gëmuñu ko. ñoom ñep dem nañ ci Amadou Ba communicateur traditionnel yeeg consort gogu yëpp dem nañ ci Amadou Ba. maintenant. Mhm. tay sax. Mhm. bu Amadou Ba supposons bu ñëwoon mo gagné. Mhm. mais Amadou Ba ci lima japp mais il va faire les yeux doux à toute l'opposition ah, xam nga pour lan xam mhm. parce que septembre prochain dafa crucial il sera obligé ku mën a gagné dissoudre assemblée bu fekkee l'état a une continuité il faut le faire parce que la force politique de l'opposition bi fa nekk dafa bari mhm. bu fekkee nga nekk opposition boo faloo majoritaire assemblée parce que Benno moo fa majoritaire ça va faire mal donc septembre mhm. c'est un rendez-vous boo xamante ni kenn du ko jéggi maintenant si Amadou gagne il va essayer de faire les yeux doux ñëpp lay jéem a def les yeux doux du bàyyi les Fall du bàyyi kenn parce que day bëgg am une assemblée forte. Mhm. ba pare président bu falu xam kañ lañuy xam ki la dëgg dëgg dëgg fan la jëm. Mhm. buñ defaatee élection législative mais fi ba législative. Mhm. De, il va garder l'ossature du candidat. non, il va, il va rester le candidat. Il va sourire, même ku ko reetaanu sa dina reetaan. dina la reetaan waaye ah, gis nga ay ay bu amee majorité à <laughs> l'Assemblée. bu boobaa su commencé nag ah doxal ah non kenn dootu ko xàmmee.